mais comme tu dis par rapport à ta question c'est-à-dire que nit euh, ou bien un produit parce que boo xoolee musique finalement benn produit la produit boo koy jaay da nga ko présenté balaa muy quitté fu mu nekk da koy defar paqueté ko emballé ko comme on dit pour nga jox ko proposer ko en public euh, la musique sénégalaise problème de présentation boobu la am pourquoi parce que à la base il faut des fonds mhm. boo ubbee sa société il te faut il te faut un boo xam ne à perte lay doon pour que ñu xam sa société pour que ñu mën ko apprécier c'est pour dire que pour revenir à la musique mooy que Sénégal le problème de la musique sénégalaise c'est les conditions sociales des acteurs culturels munoo kabaar di julli di xalaat est-ce sa dépense di nga am loo jox sa waa kër day compliqué mm-hmm. conditions sociales et que loolu on est arrivé à benn moment boo xam ne les plus difficiles pour cela a été dépassé les plus difficiles pour cela a été dépassé ñun on s'est battu au niveau des organisations professionnelles pour avoir une loi boo xam ne bi nga ko toppee c'est-à-dire la situation des acteurs culturels lépp tout va changer mm-hmm. si ça change di nga am temps wu toog di composer mm-hmm. parce que mënoo composer si yenn condition yi moo tax on peut entendre n'importe quoi ci production musicale yi génn mm-hmm. mooy moo lay permettre comme ni nga wax léegi-léegi que yenn groupe yi mën a résister mais pour résister à la longévité euh, c'est c'est pas c'est pas donné ah, peut-être que ñun si euh, euh, le fait qu'on est ak yooyu mooy tax mu gën a kii yenn choses